fanu grève doy na ñii di concessionnaire ñi nga xam ne ñuy ngi liggéey ci wàllu mbalit mi ngir ñu mën a wañ loxo nguur gi ñoom nag ginnaaw bi ñu waxtaanee ak seen njiit mujj nañu déggoo ci ay kàddu ngir liggéey bi mën a wéy suba incha allah li nga xam ni moom lañ leen ameloon au 30 juin dinañ ko soldé complètement mu des nag li ñu leen amel diggante juillet ba léegi nga xam ni tam dina doon lu takku parce que suñu factura seen facturation mensuelle soreetul ñaari milliards par mois ndax li nga xam ni dafa yokku daal li ci ëpp sax léegi ci biir réew mi la jàppoon nañ ni avant 80 pour cent budget bi Dakar la woon mais léegi c'est à l'équilibre 48 pour cent Dakar 52 pour cent dans les régions loolu aussi wane rek aussi ambition bi état bi am pour yaatal la propreté et tout ce qui va être avec déggoo boobe nag autorité yi di ko rafetlu te itam di massawu coono sénégalais yi nga xam ne jot nañ ci dund ay jafe-jafe. ñetti fan yu weesu donc c'est aussi l'occasion ñu baalu leen ak sénégalais yi nga xam ne dund nañ loolu sant leen aussi ndax gis nañ ci ay initiative yu bari si concitoyens yoo xam ne ñu ngi doon jël seen mbalit dugal ko ci mbuus wala téye ko seen kër pour éviter dispersion bi ci mbedd mi loolu yëpp aussi wone prise de conscience boo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy am nànk-nànk ci wàllum mbalit. kii di directeur général SONAGED di xamle ne mbir mi yëpp li ko waral mooy doole bi nga xam ne yokk na ko ci liggéey bi nga xam ne ñii di nettoyer ñu ngi koy amal ci at yi ñu weesu liggéey boobe nag ñu waroon ci boole yokk budget bi te defuñu ko loole waral ñu dem ba contracté bor bu toll ci fukk ak juróom loole nag faaw rek ñu régler ko ngir liggéey bi mën a wéy